lii di circulaire bi ñu koy jël waxtaan la bu yaatu bu ñu tëral ministère transport aérien ministère euh, de la santé may gërëm sa service bu baax a baax monsieur le ministre police aux frontières ñëpp ñoo xam ne ñoo yëngatu ci xeex mbas mi fii ci aéroport ñooñu ñoo tënk circulaire bi nga xam ne moom la ñu euh, jébbal président de la république ba ñun maag ministre de la santé tey ñu ñëw di ko waxtaanee. loolu li muy firi mooy ne compagnie aérienne yëpp yëgal nañ leen ko ndax am nañu seen mbootaay bu tudd le baar boo xam ne fa la ñuy daje ñoom it boole na ci waxtaan bi kon li may ñaax service yi mooy ne bu ñu bàyyi benn roppalaan buy embarqué ab passager fu mënti jóge ci àddina di ñëw Sénégal te passager bi amul kayit bi ministère de la santé santaane muy test négatif boo xam ne yàggaayam weesuwul juróom-ñaari fan kon loolu waruñu ci am benn sikki donc colonel Diouf nga liggéey ci bu baax ak euh, directeur général bu LAS ak 2AS waaye tamit ADS ci aéroport régionaux yi aéroport mel ni bu Ziguinchor te nga xam ne day jëm am avion yu jógee euh, réew ñu wër di fa dem mbay mel ni Tambacounda

pour wax leen gouvernement du Sénégal li def ci taxaw té compagnie wax dëgg yalla ay partenaires lañu té gis nañu aussi ñuy liggéey liggéey bu rafet lañu waaye nak nañu gëna a góorgóorlu ndax liggéey bu bess la ndax képp ku nar a dugg ci roplaan pour ñëw Sénégal da ngay woné kayit ci donc day yagal seen liggéey mais ñu ngi leen di ñaax également loolu ñu taxaw ci té monsieur le ministre bo gisee li euh, amone ci cas importé yi c'est parce que dañu joxone possibilité aux compagnies aériennes nit ki mën ñëw ba paré doga def test fi ci Ndakaaru donc loolu légui jeex donc yaakaar naa aussi loolu peut-être dina nekk organisation bu ñuy xoolaat au niveau de l'aéroport pour que loolu ñu vérifier avec la police des frontières est-ce que ñu ngi koy doxal doxal ba mu ci monsieur le ministre wax nga li jëm ci fukki fan ak juróom yi ñu séparé ak ak date bi donc yaakaar naa ko du ci delluwaat Euh, li may daaneel rek mooy ne euh, xeex bii buñ ko defee monsieur le ministre ba egsi dama bëgg encourage bu baax a baax service yi nga xam ne ñoom la ñu yilif te ñuy liggéey guddi ak bëccëg te kenn du leen dégg euh, comme ñu ngi fi tey muy aéroport muy autorité muy police des frontières

ah yàqul dara ci jàmbaar bu nekk ci tool ci waar wi kon vraiment ñu ngi leen di encourager encore fois de plus di leen féliciter